waaye nangu na loolu loolu mbiru sëriñ bi la man nee na loolu daal di daal daal dafa kawe defar nañu lépp nee na defar nañu lépp nañu ko gaal gànnaar xam nan la ko gànnaar gànnaar xam noonu la ko Sénégal xam noonu la ko Sénégal xame fay na fii bor fay na fii bor ci ñoo xam ne ñii ñoo xam ne ni ay kilifa la ay kilifa la amoon problème amoon problème ak justice ak justice ñu war leen a tëj ñu war leen a tëj bor mu fay leen bor kilifa ban kilifa amul kër fekk fekk kilifa bu amul kër dëkk Sénégal mu may kër fekk kilifa bu dëkk Sénégal amul soxla mu takkal la soxla nga moom Cheikh de Cheikh Tall Bouye nga xoolal nga teel am doom mu ñaanal la kër ga fees dee la doom kooko Cheikh de Cheikh Tall Bouye kooko ma yar kooko Serigne Alassane Madoumane kooko El Hadj Mouride Abdoulaye Seck kooko Serigne Alassane Biram Seck. kooku moom la njabootam toog nii ñooy borom nim jaar ah ñooy ñooy borom nim jaar nag lu may xëcc ñoom toog nga mani ba amaama bii ku ko xëccoog moom toog nga xam nga lu tax eh déglu leen nanu déglu wax taxul ñuy wax bari wax taxul ñuy wax nee na bëgg nit xam moo tax ñuy wax su ko defee dama ne bële ñuy xëccoo nii ñoom ñoo ko moom Cheikh Sidaata Kabir 16 ans Cheikh Talibouya ki topp ci moom di maamu ñii 33 ans ba mu fi jógee taawam Cheikh Sidaata rawdul ëttam xaw su bu ñuul bi 23 ans ba mu fa jógee Cheikh Mouhamed Mbaye Agne rakam 5 ba mu fa jógee bàyyi kii Cheikh Natou Faye 7 ba mu fa jógee Cheikh Bounana 18 ba mu fa jógee Cheikh Touba yow lii 71 ans boole ko Cheikh Talibou yee 103 ans ku koy xëccoo tooñoo ah kon tabarakallah macha allah lii bëggoon nañu ngeen xam ko xam ni ah, xam ni Boy Niang eh, xam ni Boy Niang mii di Modou Ngom bésam bii waa kër Cheikh ne Cheikh Saad bu dañ ci war teew teew nañu donc yàlla cheikh na cheikh Taliba nga teew ak doomam cheikh na cheikh Sarr ñoo ngi dend ak cheikh yi léegi nag dañuy daal di sunu gan gi dañ koy joxu tur booy damaa bëgg a ñëw nga ñëw di ma fii su ko defee comme man maay seen kilifa am naa kilifa ñii ñooy sama kilifa ñii ñoo moom cëm Chérif mu ni mu ni mu ni li fi nekk ci tarixa yaa xam muy murit yaa xam muy tijaan yaa xam muy laayeen yaa xam muy ñaseen loolu ñëpp dañu ànd fii bi barke mooy Seydina Muhammad Seydina Muhammad mooy seen maam ñoom Seydina moom mooy maam Cheikh la Cheikh bu mu def Cheikh ni mu ni ko xon koy booy yàlla yàlla bisala sa bés bii nga dëgmal yàlla la yàlla may ndam ne ñëpp ne ameen waay ne ñëpp ne ameen waay Thank you. mooy ñaamakan mbeng ñëw na Abdou Kandji ñëw yàlla yàlla def jàmm waxaan waat sa manager ñëw na tabarakam turandoo booy ñaa ñëw super booy ñaa ñëw tudde nañ ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la la gaba xul xasabtul wala xabarun sangu sangi yaakaaru jaam ñi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu tuddee xale bi. ma la jëm bu dul woon ak Seydina Muhammad. loolu. subhanahu wa taala nee may ko gudd fan ba mu yóbbu waajuram yi màkka li nga yóbbu say waajur yi màkka xale bi yàlla màkka ba yóbbu la màkka nee na ñaan yàlla ñëw mu ñëw yàlla indaale yërmande indaale bayre ak barke yàlla indaale yiw ak ndam nee na gan gi ñu def lañ ko ni leen doy na man moo man ismoo Muhammadun xam naa woo chara adab xabri yi su maaw doy na nee na booy na sa sa baay sa maam Cheikh Taali Koye nee ci jéew xale bi yal na ko yàlla loolu dañ koo bind ngir bu seree ba màgg ba dugg ci jàng kenn du ko mën a raw école bu mu ne daara ju mu mën a ne ñaar ñaar yal na ko yàlla may gudd fan waaye la mu ko bind la mu bind ci moom dina am xaar boo xam ne bii bu ko dikkalee nangeen ko moytu xaar dina am xaar dina am xaar bu ko dikkalee na ngeen ko moytu yal na yàlla na ko waaw kon ñu nangu ñu nangu ah. sëriñ wax dëgg yàlla ah Cheikh na Cheikh Saad mii dama am lu may leen di yokkal ah na Cheikh Saad bu la tudd de doomu Cheikh Saad ko yem Cheikh na Cheikh Saad ah waaye déglu de Chérif di nekk sama xel ah, ah, ma xam ci suuf moom ma ko jàngal tarbiya naa ko juróom-ñaari ah? li ma ñaano yëpp ci moom laa ko jëlee ginnaaw la ma jëlee woon sama baay nit du iñaan nit du ma ne def ne ah waa Cheikh dafa ci nekk duude ma ne ah ma ne jërëjëf Cheikh barke Rasulillah barke yonent moom déglu leen moomum Dakar kii moomum Dakar du ngeen màcc ci Dakar du ngeen màcc Dakar. Dakar. Eh, yaayam. Abdoulaye Koum la tudd ay dara. doomu Cheikh Talib Bouya ku yaayu xise moomu soxna Awa Gueye mu Cheikh Ibra Gueye mu Youssou Bamar Gueye attention jaraaf di Ndakaaru mu ngi nii waaw ah, mu ngi nii Youssou Bamar Gueye moo jur Cheikh bàjjan Awa Gueye mu jur xise ak Cheikh na Cheikh Talib Bouya ndax xise ak Cheikh na Cheikh Talib Bouya mu dafa taaloo xise waaw teg ci umul fate teg ci hëja teg ci turaat muy maase ak man ah. ñooñu la am ak soxna Awa Guèye te Awa Guèye moomu Cheikh Ibra Cheikh Ibra gi Youssou Bamara Guèye kon attention lii na ngeen ko yóbbaale xam ne chérif yi ah, ñoog Sénégal ah njar la njar mooy lan ndox meew suukar ak galaas boole naan mbaa boole tuur waaw plus sénégalais que chef de chef sax ku ci mër ak ay dara bisimilah. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp ku sa sant ñaan yàlla yal na may jàmm képp ku fi teew yàlla yàlla faj aajoom yëpp di suñu ndigalu waajur di la wax ndigal ne mi ngi ñu woo ci ngénte dañuy woo ci lu ñu sawar ndax loolu dina wax ñett ñett la kuy tukki ñu namm ko buy dee ñu tàggee ko te kuy woote ñu wuy si ko dafa am fekk ñett kii woote ñu wuy si ko daa fekk nga tabe bu tabe dafa wax de olof dafa wax dafa am ñettu ñett yaakaar naa su ma déggee olof li nga wax léegi kenn surtout Youssouf Amar ngay wàccal kon baaj bi ñuy ak denc Dakar ndem ak sëlam dem ba ngay biraama sële ngay biraama mun wax kon liñ ci mun wax mooy ci suñu wajur li koy génne bëriwul luy tax mu génn ci amul ci benn xew ci tàggat nga xam ne tey jar na ko mu génn mais da nga ci génn waxuñu ko doyuma ko ci sax man foog mu teew ci mais loolu mu tax te Cheikh Cheikh Baye Cheikh waa nga ci dem ginnaaw bi nga xam ne ne àndu Cheikh Yérim la ak Cheikh na Cheikh Saad muy woy muy woy ba tey mi dafa am leen lu ci rax daa fekk maamam bii mooy Alaaji Samba Ndouckman am fu mu ak sama maam Cheikh Nat Faye di koy jural donc loolu moo tax cëru ana Cheikh ana bi toujours bàjjan laa koy wax parce que dañ ko jëlee comme bàjjan mu zammilu ak mu desir ci li may dégg sama wajur bi ci nim jaat lañ yàlla ak sama baay bi ci biir penc ci sama ëttu maam kon nag lu ñu wax ne lépp loo xam ne ne yàlla féete na ko kooku daf ci gën a daf ci gën am ci barke kon lépp li nga xam ne ne suñu teewaay fii tey mu ñëw kon tey sama maam Cheikh Nat Faye su ngeen noonu ak sa maam alaaj Samba Diouf man dana ci kontaan kon nag loolu kóllëre ginnaaw lay féete li nga wax nag sànq Cheikh Baye Cheikh mooy wax ñettu ñett yi dañu wax ne ku tukki ñu namm ko daa fekk nga am ak yàlla ak tekki ku ku yàlla di ko su tukkee kenn ko namm ku dee la ñu jaale ko daa fekk nga am yëg-yëg ci nit ndax dañu wax nit xale bi juddu tey jàppul li gis déggul lu mu jàppul lu mu dégg jàppul du fàttaliku lu mu tàkkamte mais ku ko dompat mu ni da ngay juddoo ak yéeg-yéeg te ku la yéeg rek moom na la kon nag Cheikh Cheikh Baye sa njaboot gi dafa bokk ci xam daf ñu yéeg ndax dafa am ñetti yéeg dafa am yéegu sëriñ par force am yéegu yaakaar ak yéegu coofeel kon nag yéegu coofeel bi daf ci bokk ak na ñëpp bokk yegg suuf te déglu dama ni borom bis bi mooy bëgg a yëkkati ay kàddu cant jëmale ko nag ci kilifaam yu tedd yi rawatina ci bokkam yi ak am di jàmm yi Njaga Ñang bu sëñ Modou Ñang magan moo agsi léegi sa frère kon mbooloo mi góor jigéen mag ak ndaw Papa Dégol mu ngi wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nee na mu ngi nuyu ñëpp mu ngi siyaar ñëpp waaye mu ngi gërëm ñëpp nee maa ngi jël sama nuyoo defar ko ba mu gën a sell ba mu gën a tedd teg ko nag ci loxo waa ahli bayti rasul waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di beral nuyoo sama waa kër maam waa kër maam Cheikh Yirim Dumbaan macha allah. di nuyu famille sama kër maam. kenn duggul njaay gi yëpp macha allah sama ndijaay mu Juuf mu ngi nii toog ak Juma nee na ñoom ñoo représenté nag famille bi yëpp di nag ñi nga xam ni ñoom yama yàlla booleel ma dëkk ak ñoom ñuy ay mbokki jullit te ñu rafetal muy waa jàkka nee na imam yaa ngi toog nee na juróom-benn imam teew nañ ak seeni naayib macha allah ak waa jàkk ji yëpp nee na loolu firnde mu rafet la loolu doy na sant yàlla nee waaye nag am na waa jàngu bi waa daara ji ñu dëkk di ko taaf ñu ñu ngi di siyaar bu baax na maa ngi beral nuyoo sama kóllëre yi ma yàlla booleel dana ñëw ci bis bi nee na Mamadou mu ngi nii toog mooy turandoo Boy Niang 2000 nee na ba Boy Niang di fayeeku vingt cinq mille ak quarante mille ka ba ko yëkkate woon ko ci loxo mu ngi nii toog muy sunu frère Abdou Kanji doomi day Taba Kanji ak Kanji frère waaye maa ngi beral nuyoo sama xarit Ablaye Diop ak Omar Ndiaye nee na fii mbay ngi nii di doomam di doomu Pape Mansour Mbaye bu toogee Baye Cheikh toog bu toogee rek Baye Cheikh toog na fa tabaarakallaahu nee na El Hadj Mansour dafa am nag wàll ci kër maam Cheikh Yirim Dumbaan kon bu fa kenn nekkul bu ma toogee mu dénkaane booy ñaar ci kattanu yàlla ci saa c'est le petit homme qui l'américain le directeur général PDG de Gaston production Makan mu ngi mel ni nag Baye Cheikh moo def loolu nee na nijaay mooy yaay nijaayee yaay di gërëm nag mbokk yi am di jàmm yi xarit yi macha allah ñoom Modou Diouf Boursine Goumba Dofek Diouf ñoom ñëpp fa tabarakallah sama rakk yi sama doom yi. maa ngi koy beral cant ak ngërëm muy Ousmane nee na Ousmane si moom dama koy beral nuyoo ak cant ndax daa am leneen loo xam ne dañ ko ko dénk muy mission moom ak Makan Mbeng nee na tey bu booy ñaari bëre Abdou Kandji mën naa jël li nga xam ne macha allah mooy licence booy ñang ak contrat dem xaatim ko ak makante du ko waaye xam nga nag luy kóllëre ka nga àndal démb ba tey te dara ñaawul loolu moo di ànd nit dafay am kóllëre muy nag sunu bàyyi bu baax bii alhaaji burxaan wadd macha allah mu cheikh na cheikh sàmm muy abdou kanji muy waa jàkk nee bu lekkee alam na ko gërëme coy nee na góor gu baax goo gis muy dem jigéen ju tedd moo nekk ci wetam di ko jàppale nee maa ngi koy sant cant goo xam ne amul fu muy yem nee na dama ànd ak ajaratu seex anam yi ba dara dul nee na ba ñuy ànd ñoom ñaar ñuy ziar yéent bi waaye maa ko seede ndax maay seen seexu makka maa leen fekk mun naa ak ak xaalim xaalim sàmm nee na tolloon lépp gannaaw yàlla ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu doom ji di koy ñaan dara moo ko waral maa leen fekk mun naa te nag nee na cheikh bi. ne sa baay man yashaaw wallahu zul fadlil ngi tuub de nee na di gërëm tamit ñii nga xam ne nag ñooy la presse nationale et internationale di ay ca placé wu def seen essence def déplacement dérangement bàyyi lépp ñëw ngir yàlla ak kóllëre ci lu seq ak Boy Niang mbay maa ngi leen di gërëm di gërëm sama jigéen ñi soxna Abdou Kanji madame Kanji ak yaayam Sakho Ilimam teew na ci ñooñu ñooy waa Daaru Rahman du ñu jóge ba Daaru Rahman ca Touba nee na ki yor liir bi léegi Mbàkke Mbàkke la doomu seen Cheikh Daaru Rahman Serigne Bamba di maamam Serigne Bamba nag mooy seen jaamu maam Xaadimu Rasuul moo nekk soxnaam nee na soxna ku baax macha allah nee mooy soxna Abdou Kandji mii nga xam ni ah man de fu ma fekk may ma fukki junni yal na yàlla guddal sa fan. nee na maa ngi gërëm tamit Ndeye Marie di soxna Boy Niang ah dafa mel ni mooy secrétaire loolu moom faaw Boy Niang def ci dara ci man. lii mu koy indil am naa

na waaye nag sax mu sol blouson coté ndax moom sportif la def lu ci jiitu kon mu ngi gërëm ñëpp ak fan si club yi fan si ndax fan si lii la ñu am occasion pour sant leen Chérif sa kanam nga ñaanal nag fan si club yi tey ndax li muy sonn ba Boy Niang amee nelaw du ñu fanaanal fii nii ci mbedd mi la ñuy baas di ko joxe waaye nag bàyyi seen i njaboot ñëw tax fii ci bis bàyyi seen lal yi di fanaan fii di gàdde boo